dafa am benn affaire bu constante Sénégal depuis bi ñu fi découvrir gaz ak pétrole mm. euh, gaa yaa ngi jéem a def incursion gaa yaa ngi ñuy bëgg a jaxase gaa yaa ngi fiy bëgg a indi waxu waxu waxu waaso mm. gaa yaa ngi jël di jël benn partie sénégalais yi di ko dal ci beneen bi yaay y eu des événements mm. pendant ces événements là on a soupçonné des incursions étrangères mais le Sénégal s'en bien sorti mois de juin Sénégal bëggoon nërmeelu la République est restée debout. 3 mm-hmm. juillet président de la République def déclaration àddina yëpp naw ñu. Mm-hmm. ñu ñëw à deux jours du début de la campagne électorale l'exécutif en rapport avec le législatif ñu jël des décisions yoo xam ne ñoom ñoo fi indi lii yëpp. quand je vous dis ñun ñoo prêté le flanc ñun ñoo prêté le flanc parce que xam nañu menace bi nekk ci suñu kaw xam nañu ne am na ay puissances étrangères am na ay force étrangères des mouvements étrangers organisés yu bëgg a wut porox ndoll pour xool nu ñuy duggee Sénégal est-ce que du woon ci responsabilité président de la République Macky Sall moom mii ko wax dans un entretien qu'il a accordé à France 24 il y a mois moom mii wax ne même en France am na ñu diggante France ak Euh, am na ñu dugg ñu jéem a dugg ci réew mi pour jaxase ko moom mi xam lu ñëpp xamul ndax du moom moo waroon éviter. lii mais moom mi xam lu ñëpp xamul moo jël décision bi te xam naa connaissant l'homme da ko jël dans le le strict intérêt supérieur de ce pays. defal en rek les deux décisions prises. non dama ne li mu jël nii pour éviter yow xam nga ne les crises post-électorales la ñu nekk ci strict intérêt parce que parce que réew yi tas yëpp quasiment boo xoolee ci élection la c'est dans des conflits post électro moo jaxase réew yi jaxasoo yëpp. boo gisee loo xam ne leer na ni parce que conseil constitutionnel quand même mooy euh, kii kii saytu kii àtte kii proclamer les résultats. Euh, moo tax d'ailleurs man man man je vous dis ah man dafa mel na euh, euh, jaww ji moo daanu ma kaw bi ma déggee ñuy am sax sañ-sañ di porte yenn accusation yi ci kuréel boobu parce que ñoom ñoo yor décision ñooy proclamer résultat yi ci seen kanam le président bi ñu fal di prêter serment loolu dafa am solo muy benn ñaareel bi yow gis nga fi ay fait yoo xam ne doo ko contester quand même c'est-à-dire que xëy na tombee waral ay gaaf waaye éliminer nañ un candidat jàpp naa ni parce que man dama jàpp ni éléments yi ñuy indi au niveau du conseil constitutionnel mënuma ko reprocher dara parce que euh, déclaration lañu fay indi am déet déclaration sur l'honneur c'est sur cette base que la la àtte maintenant ci bu ñu indee firnde yi ci diggante bi mais conseil boobu day jël sa décision en âme et conscience en tout souveraineté euh, mais malheureusement am na beneen boo xam déclaration sur l'honneur la qui s'est révélée être fausse qui a été euh, ak yeneen yi ñu ci rax yëpp ñu jàpp ni. Euh, on n'est pas à quelques jours près pour euh, un président de la République euh, le président là n'a pas l'intention ki ma xam ki ma déglu ki ma pratiqué n'a aucune envie de proroger son mandat d'une moo tax ma jàpp ni c'est dans l'intérêt supérieur de ce moo tax nañu da dellu si waat xel képp koo xam ne Sénégal moo la tax a jot waaye waaye du sa bakkan du question de falu ay fal kii nar falu wala ñi nar falu yàlla def na ko pare na nit ñi euh, ni ko conseil constitutionnel atte parce que dafa ne aujourd'hui que jàpp na ni le vingt cinq maanaam dimanche prochain dimanche prochain mënuñu dem ci élection loolu conseil moo ko bind dans sa dans ses décisions jàpp na ni kon ñi yor compétence yi te xam ngeen kat ñoo yor compétence yi nañu wootewaat dans les meilleurs délais loolu nag balaa ñuy wéy ci pëccxoo bi kii da xëcc fii kii da xëcc fii mais ngalla na nit ñi ko séq toog boole ci nag Euh, ubbi boole ci kilifa yi boole euh, diine yi boole et cetera ñi nga xam ne tey mën nañ nekk ay garant rassuré ñiy toog fii di waxtaan Sénégal doo nga leen tax a Sénégal mooy tax ñuy wax du caagin non par force du fii kenn mënu fi imposer kuy bokk ak ku dul bokk c'est pas possible mais,